ndam na ak doomu Sénégal bi nga xamante ni tabb nañ ko si ñi nga xamante ni ñooy entraîneur yu gën a xarañ si monde bi ñu ko naan le prix des meilleurs entraîneurs di monde moom Aliou Cissé doon euh, sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal moom nag bokk na si ñi nga xamante ni ñoom la jël tabb leen comme ñu nekk meilleur entraîneur du Sénégal fii si Afrique rek Aliou Cissé rek lañ ci jël ak ki nga xamante ni mooy Jamel Belmadi Mati Jamel Belmadi boobee sax nga xamante ni mooy entraîneur bu Algérie les Fennecs d'Alger waaye nag moom mi nga xamante ni moo jëloon li nga xamante ni mooy Coupe d'Afrique bi ak équipe nationale bu Algérie waaye nag nemmeeku nañ ci su doomu Gaynde Njaay bi di Aliou Cissé nekkoon fii ancien capitaine des Lions moom itam tabbu nañ ko pour mu jël li nga xamante ni mooy prix des meilleurs entraîneurs du du monde waaye nag Aliou Cissé ginnaaw ba mu ñëwee ak équipe nationale bu Sénégal ba léegi di atub 2015 lañ ko tabb mu nekk ki nga xamante ni mooy entraîneur bu euh, Sénégal moom Aliou Cissé ginnaaw loolee ba léegi rek du muy def ay résultat yu baax naam sax am na ñoo xamante ni dañuy taxaw rek di ko critiquer mais nag moom Aliou Cissé bu ñu xoolee ba xool rek mu ngi def ay résultats euh, yu baax sax jëlul li nga xamante ni mooy euh, Coupe d'Afrique wala sax lii di Coupe du Monde waaye nag moom moo tax ba équipe nationale bu Sénégal nekk ca bopp ci classement FIFA. FIFA bu euh, Afrique moom Aliou Cissé ginnaaw euh, liggéey bu am solo bu muy def ak équipe nationale bu Sénégal loole sax moo euh, tax euh, ñu jël ko boole ko ci coach yi nga xamante ni wala sax ci entraîneur yi nga xamante ni ñoo gën a xarañ ci monde bi ndaxte moom a Aliou Cissé résultat yi nga xamante ni def na ko ak équipe nationale bu Sénégal bokk na ca ginnaaw 2002 Sénégal boobu ba léegi rek damul ci li nga xamante ni mooy finalu coupe du monde waaye ba Aliou Cissé ñëwoo ca bopp ba ba léegi Sénégal am na ñaareelu bu muy dem di jongante li nga xamante ni mooy euh, final coupe du monde nga final euh, coupe d' Afrique nga xamante ni coupe d' bii ñu génn la 2019 euh, moom ak Algérie rek ñoo demoon jongante li nga xamante ni mooy final ba mu ñàkk si kanamu ki nga xamante ni mooy. Jamel Belmadi loolee sax moo yóbbu Aliou Cissé ba jamono ji mu yor euh, équipe nationale bu euh, Sénégal waaye nag ginnaaw loolee 2002 ba léegi Sénégal tamit musul joué waat euh, li nga xamante ni mooy coupe du monde waaye ba Aliou Cissé ñëwee rek Sénégal dem na jongante li nga xamante ni mooy coupe du monde muy ñaareeli yoon mu doon résultat yi nga xamante ni Aliou Cissé mu ngi koy def ak équipe national bu Sénégal loolu sax moo tax ñu boole ko comme meilleur entraîneur bi nga xamante ñu ngi ko. ko war a joxe prix lauréat boobee rek nga xamante ni ñu ngi koy joxe si euh, mois de novembre bi ñu dëgmal ñuy ñaanal sunu gaynde njaay bii rek di Aliou Cissé nekkoon fi ancien capitaine bu équipe nationale bu Sénégal jël li nga xamante ni mooy prix du meilleur entraîneur du monde ndaxte rek mu ngi def kéemtalaay kàttanam ngir yóbbu li nga xamante ni mooy équipe nationale bu Sénégal ca footballu mondial yu gën a kawe ndaxte nag kii di Aliou Cissé mu ngi def. kéemtalaay kàttanam waaye nag mën-mënam ak xarañteem daa mel ni nag jamono ji kenn naatable wu ko.